salaamaaleykum yéen a ngi si géejawaay info point com tey jii nii ñu ngi fii au Djibop donc am fi benn invité tey jii nii muy Paco aka Paco donc moom lañ dalal tey fii si géejawaay info niir waxtaan ak moom si projet bi nga xam ne Djibop teg na ko muy euh, dialogue pluriel donc ça fait ay temps yëpp ñu ngi koy gis euh, dans les réseaux sociaux à travers le net xam nga di ci gis ay photo donc tey géejawaay info ñëwoon fi tey pour xam projet boobu lan moo ko wundu donc moo tax tey ñu dalal fi Paco donc Paco ñu bàyyi la nga présenté wu balaa ñoo dugg si waxtaan asalaamaaleykum ah, donc maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam particulièrement euh, ñi nga xamante ni ñi ngi topp géejawaay info point com donc euh, di leen wax encore une fois salaam man maa ngi tudd Papa Ali Gueye ñu gën maa xam si Paco donc euh, artiste rappeur activiste membre fondateur du groupe Pat Ghetto et cofondateur de l'association Guédiawaye Hip Hop. Je sers en tant que secrétaire général, chargé de la formation et directeur artistique euh, du festival Guédiawaye Bayrat pour sa cinquième édition. alors comme nous l'avons fait, programme programme bu donc euh, mu dialogue pluriel. dialogue pluriel comme son nom l'indique c'est un projet qui s'adresse aux jeunes qui sont âgés de 15 à 35 ans et l'objectif principal, c'est de faciliter le dialogue entre ces jeunes, le dialogue mutuel entre ces jeunes pour mieux vivre ensemble. D'où le slogan s'accepter, dialoguer, s'ouvrir pour mieux vivre ensemble. Lolé liko waral dañoo gis que ni ay ndaw fépp fuñu nek mo xam barab bu munti doon dinañ am ak wouté wouté ci walu waso wouté ci walu xet wouté ci walu askan wuute ci bépp fànn waaye wuute boobu warta tax ñu mën a beddeeku kante suñu biir ndax defe naa ni yàlla ci lim ñu créer moom mooy la différence kon wute ala kuliyal faaw mu am waaye kenn ku ci nekk lii def sa lii enrichir pour man sa life moom mooy rencontre bi ngay rencontré koo xamante ne nii xëy na am na lu ngeen nuróole waaye am na lu ngeen wuute ngeen waxtaan pour kenn ku ci ne mën a jàng ci euh, moromam te loolu defe naa moom mooy war a waru garu bépp ndaw ndaw yi dañu war di waxtaan di diso ndax diso day yok ay xalaat waye tam day dalal xel bu ko defee suñu ay problème ñu ci mëna gis ay solution di mëna entreprendre ensemble di mëna jël en fait en charge suñu bopp dialogue pluriel nak def ñu ko ni rek dañ ko teunk ci li nga xamanteni ni la philosophie prônée par le hip hop donc à savoir peace muy jamo love bëggante unity bolo. and having fun ci kaw bégee donc ci kaw loolu lañ ko tënk moo tax fi ñu koy dawal ci commune Guédiawaye ñu ngi koy dawal ci cinq communes yi te fépp fu ñuy intervenir donc dañ fay teg li nga xamante ni moom moo nekk benn débat entre jeunes yi bi njëkkee ñëw Guédiawaye hip hop def nañ fi benn débat bu am solo ñu ngi ko tuddee woon euh, hip hop et diversité ndax hip hop li muy prôné diversité la ci ni mu soso ba ni mu egg si moo xam kii fi mu bokk loolu cool ak nga xamante ni ñoom ñooy waa ki ki ñu woowee surtout Africa Bambata muy Kevin Donovan ci loolu la ko tënk ndax bi muy tënk en la philosophie hip hop dafa xëcc tuuti ci tawraat xëpp xëcc tuuti ci injil jël les dix commandements de Moïse ak tuuti ci islam noonu la tënkee la philosophie voilà euh, de de la Zulu Nation donc nit ki ki ci bokk dafa am benn code de conduite boo xamante ni moom la kii waaye ñoom ñëpp ñoom ñoo bokk lépp kenn du beddi leen donc looloo tax toujours ñu koy delloo ci ci philosophie hip hop pour mieux muy mieux vivre ensemble

mais toujours ci précepte peace love unity and having fun pour mieux vivre ensemble dans dans la communauté. waaye loolu yëpp li ko waral moom mooy que ni dañoo nekk di préparer suñu événement phare événement phare boobu moom mooy la cinquième édition euh, du festival géejewaay Baye Rap ren nag mu nekk euh, festival bu particulier par rapport ak yi nga xam ne moo ko précédé. ndax dañ ko tuddee ki nga xam ne moom mooy fondateur Guédiawaye hip hop muy Malick Sarr Sarenzo bu Bionix yàlla na ko yàlla yërëm tam décédé il y a juste euh, dix mois de cela ci accident de véhicule moom lañ ci rendrale hommage donc di wane liggéeyam ci wàllu citoyenneté waaye di wane liggéeyam ci li nga xamante ne nii moom moo nekkoon wàllu hip hop donc defaral nañ ko benn film bu tuddoon volontaire jusqu'à la mort di ci topp moom mooy legacy wala héritage pour wane li nga fi bàyyi ak lan moo nekk perspective yi lan moo nekkoon vision am donc boobu film documentaire la. waaw Paco man euh, boo ma gisee boo ma tagalee programme bi nga xam ne moom moo nekk ci euh, dialogue pluriel bi donc dañuy gis ne dafa diversité te ça touche les jeunes bëgg naa xam yéen par rapport ak programme bi ngeen di déroulé bu lépp jeexee. Yen, yen ban objectif ngeen bëgg atteindre ak lan ngeen suy out quoi donc à la sortie de tous ces événements là yi ngeen yi ngeen yi ngeen concordé pour pour pour wax dialogue dialogue pluriel bobu donc yéen à la sortie sen objectif lan la lan la lan ngeen bëgg atteindre euh objectif bi moy wax naan ko sama njëlbeenu cadre dañu bëgg ndaw ñi ñom fépp fu ñu nek ñu xam seen amul solo manam seen différence mais seen similitude moy liñ niroole. loolu moom mooy li am solo ndax yow xëy na yow lan nga euh, bambara nga man bawol bawol laa waaye terul sama xarit nga war nañoo def léegi ñaar fukki at wala lu ko lu ko lu ko jege te bu ma toogee yow du ma xalaat benn différence donc loolu lañ bëgg nouvelle génération bi approprié wu ko waaye léeg-léeg da ngay gis ñu ne réew mi Jésus moo ko moom réew mi Jésus mooy kii ka moom def ko ci whatsapp bi ñeene réew mi Bamba moom moo ko moom réew mi Bamba mooy ki ko moom ñee ne xuma penda ba ne xuma lan xalpulaar yi nangam nen na ko baddum ñii ne xam euh, njaago yi ne olof baaxul ñun làkkat loolu lañ xam wax la loolu alors loolu buñ ci formaté xale yi ñoom xëy na mun nañ koo mun nañ koo màggaale am benn ego démesuré wala benn narcissisme wala benn égocentrisme boo xamante ne xëy na mun na conduire sax ci stigmatisation benn couche de la société après mu jur radicalisation wala extrémisme violent alors nag pour parer cela di ko moom moo gën nag lakkale gone dañ ko bant dañ koy jubbanti ca ba muy tooyee looloo tax waxtaan am solo bu ñuy waxtaan xëy na di partagé ki nga xam ne géer la bu toogee ki nga xamante ni moom mooy géwal mun taxaam ne géer ak géwal ndax lislaam waxut fenn géer ak géwal bien vrai que suñu yenn parents yi dañuy dund ay affaires yu demee noonu ay gor benn tànk ay jaam ak yu demee noonu ça n'a pas de sens li am solo mooy ñun ñëpp ay ay être humain lañ te yàlla li mu wax si alxuraan moom mooy j'ai honoré l'être humain laxadd karaaf naa bànni aadama donc maa teral doomi aadama sama warugar di sa warugar di warugaru képp ku mun ti doon mooy fépp fu ñu gisee doomu aadama dañ ko war a warmaal dañ ko war a célébrer dañ ko war a teral loolu nag xale xëy na duñ ko duñ ko duñ ko xam bu fekkee ne tàggatuñ leen ci looloo tax ñu koy ñu di ko ñu di ko waxtaane fu ñu munti nekk xam ñun suñu wuute amut solo waaye li nga xamante ni moom moo am solo mooy li ñu niroole li ñu niroole moom mooy lan donte kii puune la kii nit ku ñuul la garde teyam kii ku weex la kii ku njool la kii ku gàtt la kee tungu ni la kii et cetera ñun ñëpp ay nit lañ te ñun ñooyam fa fa yàlla loolu nag ñun la ñuy prôné bëgg na xale yi nag tàggat leen ci ba ñoom seen jëmmi bopp ñi nga xam ne dañuy yëngu autour de l'art et de la culture urbaine ñoom ñu di ko doxaale fekk fu ñu munti nekk moo tax fu ñu dem dañuy ciblé lu mat cinq à 10, rappeurs yoo xam ne dañ formation ci ce, loolu nag ki ci la fondation Prince Claus de la Hollande nous avons ci pour affaire yi mën a jàppandi waaye prélude le festival bi donc le Baye Rap donc nous prévoir du 22 au 29 décembre prochain. Euh, wow! interview bi mu tiré à sa fin Paco. la sa last word ak sa dernière kii ak lan ngay dénk internet yi nga xam ne ñu ngi seetaan Guédiawaye Info waaw li may dénk bépp ndaw Sénégal wala bépp ndaw àdduna di ko dénk particulièrement ñi nga xam ne ñu ngi suivre voilà le site web guédiawaye di suivre voilà Guédiawaye Info donc li slogan projet bi rek laa leen di wax ndax dialogue pluriel ci li ñu ko tënk mooy s'accepter maanaam kenn ku ci def moroomam ni bo ni mu def boppam dialoguer ñuy waxtaan s'ouvrir ubbeeku ci àddina pour mën a jàng ci ñi ci des ngir suñu nekkin maanaam mën a jàppandi pour mieux vivre ensemble s'accepter dialoguer s'ouvrir pour mieux vivre ensemble loolu mooy tekki ci hip hop peace love unity and having fun waaw merci Paco donc tey ñu ngi woon fii nii waay info nekkoon ji bopp pour waxtaan ak Paco si projet bi nga xam ne ji bopp teg na ko en prélude euh, du festival quatrième édition festival géej waay Rap bonk bi nga xam ne ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko ñu ngi ko dédié à feu Malick Sarenzo donc yàlla na ko yàlla yërëm donc euh, ñu leen di jox dig daje si biir mois bi au ji bopp donc ñu nekkoon fi tey di waxtaan si projet bi nga xam ne mooy dialogue pluriel pako nekkoon fi tey di leen ko faram fàccal donc ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon restez connecté sur guédiawaye info point com peace love ba beneen yoon